ca bàkk ba jib na générique bi départ na wasaare lamb tàmbali na ak bàyyi yi ñu leen di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi seetaan wasaare lamb fépp foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ni ànd nañ kook wasaare euh, mbokk yi ni ñu jàngatee làmb démb gis ngeen ko ma ànd ceeg sama papa Pierre Birahim Ndiaye mu doon koo xamante ne vraiment buñ naan làmb euh, xam-xam làmb ci moom la la yem Euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ko ñaanal bu baax yàlla suñu borom kàttanal ko dooleel ko ba lépp lu mu bëgg rek suñu borom defal ko ci lu kawe njortam parce que père Birahim Ndiaye suñu papa la mais baay ju baay ju woyof la baay joo xamante la baay ju baax la fépp foo ko gis rek da lay conseillé di waxtaan ak yow ci lépp loo xamante ne mooy sa avenir àdduna ëllëg euh, muy mbëru làmb muy kudul mbëru làmb mbokk yi tey noonu la ñuy fas yéene waatee tey jàngat euh, waxtaanaat ci leneen loo xamante ni gis nañ ko muy bees fan yi ci ëttu làmb muy lan combat yi nga xamante ni jàppoon nañ ni taxaw na mu mel ni Tapha Tine ak Boy Niang numéro 2 làmb jooju euh, kii di Pape Thialis moo ko tëgg euh, borom Leewtoo production moo tëgg diggante Boy Niang ak Tapha Tine suñu papa Gaston Mbengue moo tëgg ki nga xamante ni mooy Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux mbokk yi jamono ju ngi dem parce que Gris Bordeaux euh, dañ ko waroon jox avance vingt cinq millions suñu papa Gaston jox ko dix millions avance mu jékki-jékki gis ko mu def benn sortie wax di lekk di laaj li nga xamante ni mooy 15 millions yu ko suñu père Gaston yoreel père Gaston di ko xamal ni bu fekkee mënul def ndànk mun na ko delloo 10 millions yi mu ko jotoon jox avance na ko ko Gris Bordeaux delloo. Euh, kii di Boy Niang numéro 2 am na benn keneen koo xamante ni proposé na ko loolu euh, ba bëggoon diggante kombaam ak Balla Gaye 2 ba ñu ngi ciy waxtaan euh, mais papay Boy Niang numéro 2 dafa génn. def benn sortie moom it wax ni moom du musa war ki nga xamante ni mooy Pape mu wel ni mu mel ni euh, li suñu papa Max Mbargane wax am na leneen loo xamante ni mu ngi feeñ ci suuf muy am na yeneen promoteur yoo xam ne ci yeneen lobby lañ bokk ñëw nañ ngir ngemb keneen koo xamante ni xamuñu dañoo bëgg a yàq làmb ji xamuñu ba xam dañoo bëgg a tëgg yeneen làmb euh, xamuñu xamuñu xamuñu waaye li ñu jaaxal mooy euh, bu fekkee dangaa ñëw pour tëgg làmb combat yi nga xamante ni jàpp nañ di taxaw na ba noppi amatoo ci yoon pour tëgg pour tëgg combat bi rawatina mbër boo xamante ni dafa laal avance Gris Bordeaux bu demee ba yëkkati 10 millions jox ko ko avance Boy Niang eh, ñu jot ko compal ki nga xamante ni mooy Tapha Tine eh, jot nañ ko woo mais dafa li Pape leeral dafa dafa dafa dafa nekk benn dëj ci reefan tey mu mel ni tey làmb fi mu toll nii eh, am na beneen buuxante bu ci am mais buuxante bi ci am euh, bokkut ak biñ daan gis ci làmb parce que pour man kombaa bu taxaw ba pare beneen promoteur amu ci yoon nañ leen xoolaat bu baax taxawaay yi mais dafa am leneen lu ñu jaaxal loo xamante ni daawuñu ko gis ci làmb muy dagg njëg dagg njëg tamit bokkul ci liy defar làmb bokk na ci li nga xamante ni dafay yàq parce que mbër boo ko jëlee boole kook adversaire am ñu d'accord ci kàddu nga war ko fay 30 million nga yëkkati un million cinq cent jox ko ni ko téewal mooy dagg nga njëg bi waaye contrat bi moom daray contrat euh, daanaka mun la leen a bañ a lié léegi nag li ci gën a mën a nekk mooy contrat boo ko tëggee organiser ñaari mbër ñu d'accord ci accord ku ci nekk bu ñëwee dafa war a signer nga yëkkati li nga xamante ne mooy avance am nga jox ko loolu sinon dafay indi lu mel nii rek ci làmb day indi li nga xamante ne mooy indi jeexi jaaxa ci diggante booy Niang euh, ak Balla Gaye am na keneen koo xamante ni mu ngi ci suuf di dox combat boobu tellement nii mu ngi ci suuf di dox combat boobu euh, jàpp nañ ba xam dina taxaw du taxaw jàpp ñu ne dina taxaw ndax papay booy Niang wax na wax boo xamante ni euh, waxi gor la wax na wax boo xamante ni waxi kilifa la ndax kilifa nag amul lu dul kàddoom boo demee tënk ak kilifa ba ngeen waxtaan ci kàddu ba déggoo tey lépp loo xamante ni am na rek euh, nasaraan si ñoo ko fi indi contrat léegi la am waaye bu njëkk suñu maam yi dañ la daan lebal nga dem soxla ab sàq dugub wala ñebbe wala leneen ak leneen ak leneen ba ci xaalis nga ne ko abal ma temps bis temps dinaa la fay nga yëkkati jox ko bis boobu nga fay ko ndax ñoo amuñu woon lu dul seen kàddu léegi nag dem nañ ba mujj gi kàddu googu day bëgg a raaf waaye kayit lañuy indi kayit bi mooy waral mooy wane li tax ngeen mën a déggoo kayit bi mooy wane li tax nga mën a xam ne kii kat lii këyit moo ñu boole tey loolu yëpp léegi la xew mbokk yi mu doon loo xamante ni tey yéen ñuy seetaan mbokk internet yi yéen a ñu gën a xam li ñu bëgg a wax waaye nag loolu moom bokkul ci loo xamante ni day day defar làmb Balla Gaye 2 mu ngi ci ruqam ba tey dégguñ ko mu wax lenn loo xamante ni jëm na ci combat bi waaye kiy dox combat yooyu tey am na ci mbër yoo xamante ne am nañ combat bu dee Modou la am na combat diggante mag Ama Baldé bu dee Balla Gaye la am na combat diggante mag Gris Bordeaux bu dee Boy la am na combat diggante mag Tapha Tine pourquoi pas nga gëstu ñeneen la de guerre de amul combat mu ngi fi champion la war naa mën a bëre yeneen daanaan ñeneen ak ñeneen war nañoo mën a daje ci làmb làmb fi mu toll nii bu fekkee ku bees la kuy ñëw ci làmb liñ koy ñaax di ko ko wax mooy na xoolaat bu baax toog na too toogaayam ci làmb na xoolaat bu baax duggiseem ci làmb ndax làmb nag euh, li wolof naan boo bëggee sa duggin rafet dangay jaar ci bunt ba làmb dafa am bunt tey nañ bàyyi xel ci mbëri surtout mbëri nañ bàyyi xel ci ñi nga xamante ni tëgguñu làmb waaye nekk ñu lu dul di yàq làmb xam naa ci ñaari mbër yu mag yoo xamante ni bëri nañ ci saison bi daaw euh, seen combat dafa taxaw am promoteur bu ko taxawal mun naa tudd turu promoteur bi euh, Pape Abdou Fall moo tëggoon combat boobu mu tëgg combat bi euh, fay prix ci ñaari mbër yi am beneen keneen koo xamante ni woowaat na mbër yi ne mun naa fay plus que li Pape Abdou Fall fay alors que mënul fay loolu ba ba commencé yàq xelu mbër yi ba mbër yi di xaar parce que mbër nag dafay liggéey tey boo ñëwee yor sa marchandise di ko jaay nga teg kii ñëw fay la trente mille kii ñëw fay la soixante mille te yow jaay rek moo la tax a jóg xaalis bi fi mu gën a bëree foofu nga koy jaayee combat boobu li ko waral mooy promoteur bi daa mujj oblise ñu ñu mujjee wax adversaire mbër mi ne ko sa adversaire temps la fayeeku li mu fayeeku moo ëpp li nga fayeeku bul jël combat bi bàyyil man dinaa ko tëgg dinaa la fay lu ëpp li ñu fay sa adversaire dem ci adversaire bee ne ko liñ la fay mën naa la fay plus ko loolu kooku li ko tax a jug du defar làmb kooku li tax mooy bëgg na yàq xelu mbër mi bëgg na yàq xelu mbër mi ba komba du am te loolu bokkul ci loo xamante ni day defar làmb làmb li ne ci suuf kenn mënu koo wax dafa bari ñoom ñi nga xamante ni nag ay kilifa lañ te ñoom ñoo jiite làmb ngala jàppale leen xale yi mais ngala bu leen saboté làmb ji ndax nag sport la boo xamante ni ñi ciy jariñu dañoo bari bari na ci ñoo xamante ni da dégg ñu ne la làmb facteur de développement la euh, kiy jaay ndox ak ciy tedd kiy jaay gerte caaf ci stade bi mu ngi ciy tedd kiy jaay ndékki wala ngay jaay euh, sandwich yaa ngi ciy tedd ba yow mi yow mi nga xamante ni sax sécurité ngay def dañ lay jël ngay terd ci làmb te ku ci nekk fukki dërëm boobu mu fay am wala ñaari fukki boobu mu fay am daf koy yóbbuwaat ci ay mbokkam bokk kook ñoom kon kooku buñ ko jàppalewul ngala buñ ko yàqal nañ leen bàyyiwaat bu baax a baax a baax xel ci làmb ñu bàyyi promoteur yi nga xamante ni ay bëyër lañ ci làmb ñu ngi góor góorgóorlu yëkkati seen xaalis def ko ci làmb ngala nga jàppale leen ngeen dooleel leen ngeen kàttanal leen saison bi ñu jëm tey saison bi ñu duggoon ñëpp waxoon nañ ne làmb raaf na làmb du am làmb toll na ci dynamique yoo xamante ne fi mu toll nii fi làmb tolloon 2011 tolloon fa 2010 mënatu faa toll waaye yàlla mu ngi suturaal làmb di suturaal njooñu làmb ba lépp luñ bëgg ci làmb ñu ngi koy am ñu jékki-jékki gis Sénégal entertainment dugg si ci làmb ñu jékki-jékki gis ku mel ni euh, Pape Thialis ñu gëj koo gis deux ans wala trois ans yoo xamante ni dellusiwul ci làmb ñu gisaat ko mu ñëw moo lay wan ni euh, dafa dem loluwaat waxtaan ak njegenaayam ba ñëwaat ci làmb tey kooku bul ko jéem a yàqal dara ku mel ni Pape Abdou Fall nga xamante ni suñu papa la danaan tëgg ñetti journée wala ñeenti journée yu mag ci at bi wala ci saison bi nga dem ba léegi nga gis mu taxawal benn combat ku mel ni Siteu Papa di xaar combat boobu jeex mu mën a joxaat yeneen mbër avance moo lay wan ne am na yeneen yu nekk ci suufu làmb te mënuñu ko mënuñu ko wax kon euh, mbokk yi nañ leen xoolaat bu baax a baax a baax taxawaayu làmb yéen ñi nga xamante ni yéen a làmb bàyyi leen xel bu baax a baax ni làmb dafay jeex te yéen promoteurs yëpp yéen a bokk ndey yéen a bokk bàyyi liggéey bi nag liggéey la en matière de business amul sentiment mais nag na liggéey bi rafet na rafet rafet gi mooy avance jot naa génn jox nañ Gris Bordeaux avance Gris kiy jaar ci suuf di la wax naan la dafa bëgg sa combat soit yow ak Balla Gaye di la fay li ëpp li la Gaston Mbengue fay wala mu lay proposer li ëpp li la Gaston Mbengue fay man ci suma xel mu gàtt jàpp naa ne buggul tëgg làmb ji xam nga lu mu bëgg nga joxe 10 millions yi per Gaston téye 10 millions yi du la tëggalaat làmb ji gàllu te fi mu toll nii bopp bu rëy tey metti bopp bu ndaw te sedd moo ko gën jëlal say 10 million xaar say 15 million préparer sa diggante sa combat yi ak Balla Gaye 2 ne ko ànd ak say mbokk dem lu la yàlla may nga jël Balla mu ngi concentré wu ci ruqam rek Balla mu ngi waaj rek Balla waxul génnul dégguñu ko ci dara te pourtant que yéen ñaari natango yooyu yéen a ko séq am na ñoo xamante ni euh, yàq moo leen tax a jóg yàq tax a jóg moo waral ñu naan Balla Gaye euh, Père Gaston Aziz Ndiaye moo nekk ci ginnaawam wala diw moo nekk ci ginnaawam wala diw moo nekk ci ginnaawam ki nekk ci ginnaaw Père Gaston ñu njariñ yàgg nañoo dégg promoteur bu taxawal làmb ñu naan promoteur bi fii la far du jeex ci làmb mais promoteur bi fii la far dafa dafa doon loo xamante ni euh, kiy bëreeg mbër promoteur bi day daa war a daan wala dafa war a daan stade bi yëpp buñ la faralut nga ñëw wane jàmbaar wane fit wane fulaak fayda da ngay am ndam dem ñibbi làmb sport la boo xamante ni faw góor la jàmbaar moo koy def. garmi moo koy def fit moo koy def fi mu toll nii am na ci ñu bari ñoo xamante ni dañ naan la bul jël xaalisu diw gis nañ fi mbër moo xamante ni da doon bëre ak beneen mbër promoteur bi tëgg làmb ji ñëpp xam nañ ni fi mu far mu yëkkati un million may la ko nga doo ko jël parce que mystique la loolu ci lan la bokk xaalis un million ñu ko jox la ko may la ni doo ko jël parce que mystique la ki lay xañ loo un million yooyu te dangaa dangaa gedd un million yi dem bëri ñu daanu daan la làmb ngi noonu tey un million yooyu mënoon nga koo jël préparer sa combat pourquoi pas doo daan mbër moom des fois am na yoo xamante ne dañ koy def ci xelu mbër yi te alors ko loolu newul ñi koy def ñëpp mooy ñi nga xamante ni dañoo contre làmb ñu baal ma ñooy ñi nga xamante ni tey euh, mën nañ leen a tuddee ñi nga xamante ni ñooy noonu noonu làmb noonu làmb rek nga leen mën a tuddee parce que lépp lu mën a jëmal làmb ci kanam ñoom pare nañ pour xeex loolu ba loolu du am tey nag nañu leen xoolaat bu baax a baax a baax ay secret promoteur la ñuy jéem a génnee promoteur bi yoru xaalis kii bu la tëggee du la fay kii da lay def lii kii da lay def lii moo tax ñoom promoteurs yi war nañoo xoolaat seen bopp xoolaat seen taxawaay ci làmb xoolaat askan bi fi ñu leen teg ak gëm-gëm bi nga xamante ne war nañ faa mën a yóbbu làmb ndax li gën a ñaaw ci àdduna mooy mujjee puso bi mu réer sa loxo Père Gaston wàllam wéy na la waroon def ci làmb def na ko ba noppi Père Xaadim Samb wàllam wéy na at yi mu def ci làmb du ko ci defaat keneen ak keneen ak keneen noonu kon yéen ñi nga xamante ne yéen ay xale yaakaar ci làmb yéen promoteur yi boolawaat leen bàyyi yooyu noonu yooyu baaxul loolu bokkul ci luy defar làmb dafay yàq rek ay suufante beeg ay yooyu àdduna boo gëmee ni ku ci nekk sa wërsëg ngay lekk rek di nga ko lekk mbër yi nag yéen laay waxal yéen mbëri mag yi nga xamante ne seen combat taxaw na ba pare bu leen ko kenn yàqal jël leen combat bi ànd ak seen i mbokk ànd ak seen xarit ànd ak seen njagañaale dem préparer combat bi bu ngeen ñëwee ci làmb ja keroog ku ci nekk xaar parce que xam nga ni combat bu mel ni Tapha booy Boy askan bi ñu ngi koy xaar te neex na trop am na ci ñoo xamante ni certes commencé nañoo sax di wax combat bi kii mooy favori kii mooy daan kii moo lii kii moo ëpp lee kon làmb jooju bu mu ñëw bu toll fii ñu bëgg koo yàq ku mel ni Gris Bordeaux Balla Gaye euh, ale Balla gay 2 daan ko stade Léopold Sédar Senghor ñu war a def retour bi nañ bàyyi mu leer ah gay Gaye day dolli fi mu tegoon tànkam wala Gris Bordeaux da koy wan nii combat bi erreur la woon dama lay daan mbokk yi tey loolu lañ leen indiloon ci seen jàngat làmb di leen jaajëfal bu baax a baax a baax bàyyi ji li ngeen ci àndaloon. fépp waay mën a nekk rek ñu ngi lay jëfal di la jox sa wàccuwaay di leen jaajëfal bu baax a baax a baax encore une fois euh, di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërë ngeen jëf